auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare nu fas yéene tàmbali ak yéen benn téere mooy téere bu nu liggéeyoon tuddee ko xalimag leer mu jëm ci leeral mbindum sëriñ bi ak wax liggéeyu sëriñ bi ci wàllu bind bëgg tàmbali nag di ko def ay ndéggat ba mat sëkk incha allah kon tey dañuy tàmbalee rek ci njëlbeen gi mooy li sabab téere bi li nu taxa bind téere bi di xalimag leer xam nañu bu baax ne mbindum sëriñ bi fu nu toll ñoo ngi ciy gëstu rawatina xasida yi nga xam ne bokki taalibe yi fonk nañu ko lool fu ñu toll di ko jàng ci anam yépp mooy duruus ak yëkkati fii àdduna toll it jëm ju fi nekkatul ci saaxir li gën a wóor ngir xamle ko mooy wane ay mbindam ndax mbind mi mooy tegtale jëmm ji te nee ñu Sëriñ tubaa daana wax ne wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis ma bind bàyyi fi kon képp ku ñëw ginnaawam mbindam mi moo lay wan la mu daa jëf ak la mu daa wax ndax moom sëriñ bi mbindam wuutewul ak jëmmam kon jot na sëkk nu gën a siiwal ab liggéeyam ci wàllu mbind moom sëriñ bi it bokk na ci ñi ëpp lu ñu bind doo nit koo xam ne xalimaam yàlla xalimaam yàlla da cee def leer yu bàgg te bari moom sëriñ bi nee na samay xar baax mooy sama mbind sama borom ñoddil na ma li gën a màgg ci fi moom jaaree ko ci sama mbind karaamati xattu yadi wali jasab ansamahu rabbi bi xatti fan jasab bokk na ci li waral nu bind téere bi jéem a leeral bu baax mbindum sëriñ tubaa mi jëm ci wàllum njàngale ndax ñu bari ci taalibe yi bàyyiwuñu xel mbind yooyu te lépp lu jëm ci leeral diine ci mbind yooyu la nekk moo tax moom lañu jiital indi ci ay leeral wax naka la Sëriñ Tuubaa binde ci wàllu jàngale diine ak ñen ñoo di ay delluwaayam ci diine xasida yi tollu na taalibe yi fu sori lool fu ne ci àdduna ñoo ngi ko fay yóbbu di ko yëkkati kon laaj na ñu def ci ay leeral yu yaatu lool sukkandiku ci waxi sëriñ bi leeral yooyu dina tax ku fonkoon xasida yi dina ko gën a fonkaat ku ko sàgganee woon dina ci jaare fonk ko incha allah ndax lu nuy sàkku ci ay njariñ tey ak ëllëg sëriñ Tuubaa defal nañu ko ci xasida yi téere bii dina wax xeetu njàngale mu xereñ mi sëriñ Tuubaa di jàngale ci ay bindam dina taxit nit ñi xam bu baax sëriñ bi yan jaaruwaay yu nu mën a xam la jaar boromam ba sunu mu yëkkati ko lool defal defal ko mbiram mu doon mbir mu rëy lool moo xam ne àdduna sépp ci teg seen bët kon loolu mooy li sabab nu bind eh, téere bi téere bu mel nii nag di wax ci wàllu mbindum sëriñ bi bii mooy bi ci njëkk donte am na bu ko jiitu woon bu mu nirool te waaye bee ko gën a yaatu muy téere boo xam ne Sëriñ Alxaaji Mbàkke Xaarimul Xadim bindoon na ko tuddee ko An-Nahjul Qawim waaye da ko jagleeloon rek xasiday sëriñ bi rek ci ak tënk bu dee téere bi di Xalimag Leer nag moom lépp lu aju ci wàllu mbind rek moom sëriñ bi da ci indi ay leeral am na yeneen kilifa yoo xam ne wax dëgg seeni téere yu ñu jëmee ci sëriñ bi wala ñu ko ci yoon wi indi nañ ca lu jëm ci mbindi sëriñ bi waaye téere boo xam ne dañ ko koo jagleel rek bi mooy bi ci njëkk kon loolu mooy jiital ginu nu tàmbalee eh, téere bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu